jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo ñoo ngi jégalu yéen ñi sifur lamb actualité lamb te ko sifur ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le 23 juillet ci atum 2020 ngeen ànd seen doom seen xarit sekk ndaanaan mu xëy jëw ak ci journalu sunu lamb ñu fekk fa ki nga xam ne moom moo di Pape Diagne Seras muy indi ay leeral yu am solo ci diggante combat bi dox ci seen B52 Garga Mbossé Sa Thiès ba ci Tapha ak Boy Niang ñoom ñooñu day seeni combat dañ ko monté ci li xam ne nii amul joxe avance waaye ba tey ki xam ne moom moo di Gaston ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ci ñoom jot nga avance avance su Balla Gaye 2 mi ci loxo ki xam ne moom moo di Abdou Aziz Ndiaye ñu koy déglu booba ba léegi nag waaye ñëwagul itam leeral waaye ki xam ne nii moom moo di Maxime Bargane ñëw di leeral ci combat bi dox ci di ba tey jotagul li nga xam ne ni moom moo di avance waaye ki nga xam ne ni moom moo di Bécaye Mbaye di leeral ci diggante rëg-rëg ak ki nga xam ne moom moo di guy gi di wax ne rëg-rëg day kenn ragalu ko dafa amagul promoteur boo xam ne ni war naa mën a tëgg combat am waaye ki nga xam ne moom moo di rëg-rëg ñu fekk ko foofee ci xëtum raccord muy leeral ne day combat bi nga xam ne moom moo doxoon ci digganteem ak guy gi ci waa CFM moom signé wul woon li nga xam ne moom moo di contrat dafa signé woon ak nga xam ne moom moo di ab ab décharge waaye ki nga war a moom moo di ki nga xam ne mooy Yékini Senior ñu fekk ko ñu ñu xamal ne day moom moom moo fi ancien adversaire boo xam ne nii jàpp nañ ne war na mën a bëri ak ki nga xam ne nii moom moo di Lac de yi ñu fekk ci xëtum raccord ki xam ne nii moom moo di embrassar muy xam le ne day kii nga xam ne nii moom moo di Isine Doole gisagul menn mbër moo xam ne nii jàpp na na koo gën a taxaw ci làmb ji waaye ki nga xam ne moom Gaston Mbengue itam ba ñu fekk ko ci xëtum sunu làmb muy leeral ne combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Bombardier ak ki nga xam ne nii moom moo di Eumeu jàpp na ne ñoom ñaar ñooñu ku ci nekk ci yow balaa ñuy dem li nga xam ne moom moo di événement Tabaski di Thiès mbokk yi yéen ñi suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bi nga xam ne moo di du ne kenn bu ma topp waaye ku joy dopp Bawal TV du ne kenn bu ma topp waaye ku ko topp satane